fekk mi suñu kër ak ay kayit di ñoom kayit yi kayit kayit di ñoom moom terrain yi yóbbu ñu gendarmerie fanaan naa gendarmerie ñaar fan maak sama doom ñu nangu terrain bi ni fi fii fii fu war a classé la ndax président bi fi ñëwee dafa ni euh, jox naa leen terrain yi ñu régulariser ko ñun foogoon na sax duñu egsi fii li ñu daw dox nañu guddi dox bëccëg sonn nañu dox noonu ba sonn foogoon nañu président su waxee duñu egsi fii ndax ñun woo nañu presse bi benn bu dul ñaar dem nañ ci gouverneur dem ci préfet ñuy dala sunu xel léegi nag moom danoo sonn bii mooy anniversaire u de la république bi SDE bi mu fi doon bi mu fi doon euh, inauguré fii lañ ko mën a waxee léegi nag danoo sonn taay nanu ñun kontaanoo noonu ba tudd que cité bi cité madame madame première dame madame Faye Sall gis nu dara gis nu ko boobu ba léegi gis nu dara léegi nag danoo sonn nanu jox suñuy kayit war ñu dëkk si ak nu mu neexee. sonn nanu sonn nanu ay jigéen lanu danoo jaboot école amu fi amul courant agresseurs yi bari nanu amul ndox ak ku génn ñu agressé la xale yi dañuy dox ba sonn di jàngi waaw xale yi dox noonu ba sonn di jàngi école amu fi amul goudron amul dara ñu dëkk amoon lu la gën nga dëkk ci biir dëkk ba waaye nag néew doole moo fi nekk ñu xool ne tu yërëm nu jox nu suñuy kayit ñun dañu ne duñu marche duñu grève de faim duñu duñu kaas kenn mais nag mi ngi bëgg a ëpp deux

deux mille cinq cent deux mille cinq cent habitants loolu ce n'est rien administration dafa bëgg lépp lu muy def dañ koy écrit bind ku nekk mi ñuy wax ni déclassé nañ ko mais ñun gisuñu lenn lu ñuy mën mën kii notifié ni ñu déclassé nañ ko amul benn écriture am benn këyit bu ñu wan kon ñun mënuñu gëm wax jooju te boo demee ci préfet la même chose lay wax amut këyit bu koy wan ni dañ koo déclassé kon ñun jàpp nañ ni forêt bi kenn déclassé wu ko nous avons ñun wax wax préfet gouverneur le président de la république la ñuy wax ak message président Macky Sall vraiment nous ngi lay sant di la gërëm ndax 2500 personnes yi avons duñu Nous APR moom xam mais on l'a pris 1000 signatures vraiment nous, avons nañ ko moom jàpp nañu mais na wax ak service technique yi ñu ñëw defarañ nous avons suñuy un le préfet wax na def leen recensement euh, euh, wax na ko ci rajo bi ne. képp ku am les attributions mu nekk ci biir forêt classée bi na ko indi à la préfecture ñu téye ko mënuñu yéen dem leen ngeen def seen pré recensement ñu def ko yóbbu ko fa borom kayit yi indi ko mais kayit yi ñëw ñun moo ñu jaaxal. li ma gën a neex fu amul lotissement fu amul lotissement amul borne nooy génnee kër ngeen baal ma ci terme bi mais comme dab rek sérieux wuñu buñ la ñëwee dañuy nekk koo xam ne dafa am doole da la yóbbu bu la yóbbee. sa kër la nga ne acte de vente ak lettre d'attribution yéen ñun ñëpp xam nañ ne acte de ak lettre d'attribution lettre d'attribution moo koy mën te du yoon lettre d'attribution yi baaxul ci forêt classée ñun d'accord nañ ni fii ñu fi taaw ñëpp xam nañ ni lettre d'attribution amut amut ci biir forêt classée man forêt classée du man maa ko créé du yéen yéen a ko créé mooy meel moomeelu état bi la ñoom ñoo ko wax ndax bi ñuy commencé fii eaux et forêts moo fi doon ñëw mais bi président waxee bi ñu defee commission bi eaux et forêts ñëwatut mooy parce que forêt habitation moo koy pousse ñun ñu dëkk si dëkk bi suñuy maam suñuy nijaay yor ay kër fii di ko tabax ñoom ñu jékki-jékki dugal ay plan ci biir tool yi yëngale ko ñu ñi bu ñuy ñëwoon borom tool bu nekk ñun la yow am nga cinq tool li des buur da koy jël kon ñun duñ fi dëkk si fii genn wàll